aousubillahi min asheytaan irajim a arrahmanirahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen baal wax bu baax baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun seen chaîne bii di alquranul karim zikr wa shifa chaîne bii di leen baaxee lenn ci ay manafi maanaam na ci ay njëriñ ci alquran waaye di leen di faral di firil seen ay gént ginnaaw bu ngeen ko soxlaa bi ngeen amee gént bu leen jaaxal wala bu ngeen bëgg leerlu ngeen envoyé ci numéro whatsapp bi ngeen envoyé ko numéro wala ngeen woote incha allah dana leen ci tontu ci kàttanu yàlla lu dee ay njëriñ yu ngeen soxla yu leen ci yu leen baaxee ci alxuraan tamit mën ngeen ñu jokkoo ñun ci numéro bi whatsapp bi mu ngi noonu ci suuf ngeen jàkkaarloo. tey ñu ñëw ak yéen ci firi gént li ñuy firi tey ñu bari bu ñu ko géntee li ñuy tiit mooy gént rey nit wala gis nit ku ñu rey. ku ko gént rek da tiit li bari dañ lay laaj naan mahmoud aw madmum maanaam baax na wala baaxul balaa ñu ci ñëw ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé vidéo yi te itam def seen commentaire gént rey li gën a matale umuman maanaam nga jàpp ne gént rey nit wala gis ku ñu rey wala mun taddulla ala rizq axyaanan wa axyaanan tadulu ala najaax wa tëdd lu ala taxqiq al ahdaaf gént rey nit wala gis ku ñu rey benn dana ñëw nekk wërsëg wuy ñëw ci yow wala mu nekk réussite moo xam concours boo doon def walla projet boo doon def wala lu moo doon wala loo mën a am mu nekk réussite ci loolu wala itam mu nekk attend sa objectif ci lenn loo xam loolu nga bëggoon yàlla dina dimbale nga àgg ci gént bu baax la ci gàttal bu baax la ci gàtt nekkul nag mi abil mi ah am na nag léeg-léeg maanaam nekkul 100 pour cent léeg mu ñëw lu baax waaye umuman li ëpp daal nga jàpp na loolu la benn da gént yow sa jëm bopp nga rey sa bopp maanaam nga jam sa bopp paaka wala nga fetal sa bopp wala nga xaru ak lu mu mën a doon mahmoud subhanallah gént bu baax la gént bu baax a baax la li muy tegtale tegtal bu baax la Euh, euh, tegtal bi mooy at tawba min adunub wal maasi at tawbatu min adunub wal maasi maanaam tuub ci sa ay bakkaar walla ay mooy yàlla yoo xam ne def nga ko nga amoon loo bakkaar boo def wala mooy yàlla goo tooñee sa bopp nga jéggulu sa bopp sa boroom nga jëf loola tegtal gi mooy sa tuub gi suñu boroom nangul na la ko gént gu baax maanaam da nga gént jëm sa bopp paaka wala nga xaru wala façon boo mën a reyee sa bopp baax na boobu benn ñaareel bi da gént gis nit ku ñu rey gis nga koo xam ne rey nañ ko gis fekkee nga ko rey gis nga am ko jam paaka wala yu mën a doon tegtal bi lu gàtt la mooy yow ci sa jëm bopp mi nga xam ne yaa fekkee loolu da nga bari loo stressé wu bari looy jaaxle bari looy looy tiit ci sabab bi lan la mooy di xalaat loo xam ne ñëwagul yaa ngi xalaat dara wala yaa ngi xalaat ëllëg yaa ngi xalaat bu bare bare bari moom mooy faral di def loolu bu fekkee nag jigéen bi dafa gént boroom këram ñu jam ko am na ko ko laajoon borom këram ñu ñu rey ko ñu jam ko paaka wala ñu rey ko ak anam bu ñu ko mën a rey borom këram la subhanallah génn gént gu baax a baax la li muy teg tere mooy tuulul umr maanaam gudd fan ci sa borom kër wala awlaad ak say doom yi ngeen seen doom yi ngeen am du moom kese de gudd fan la ci sa borom kër bi nga gént ñu rey ko ak doom yi ngeen am wala aks saxiix bu fekkee borom kër gi tamit moo moo gént am ñu rey ko kazalik gént gu baax la loolu ala xaalin baax na beneen bi ruyatul qatl bi rasaas maanaam da gént ñu rey nit wala yaa ko rey sax nga reyee ko fetal maanaam koo xam da nga ko xam nga tiir ko fetal bala fetal mu dee reye woo paaka bii fetal nga nga nga nga nit baax na ba tey kazalik tegtal bi mooy da nga am euh, alal joo xam ne yaa koy fàggu ci sa biir liggéey daal yàlla dina la defal xéewal goo xam ne danga ko am ci li nga doon liggéey baax na beneen maanaa bi maanaam mën na nekk yéen ñaar ngeen séq benn liggéey wala benn business wala commerce wala lu mu doon loo xam ne da ko bokk dina leen amal njëriñ di ngeen ci am résultat baax bu fekkee nag xam nga ki nga rey kan la lay firi loolu mais bu dee xamoo ko alal juy ñëw ci yow joo xam ne yaa koy fàggul gént gu baax na laa kulli xaalin bonul da ngaa génne tiiram bi bala fetal mu dee baax na kii xale bu jigéen la boo xam ne amagul borom kër maanaam célibataire la mu gént ñu rey ku góor koo xam ne comme moom xam na ko te koo ko nekk célibataire moom xam na ko mu gént ñu rey ko nga jàpp xam na ko su fekkee xam na ko xam na ki ñu rey gént gu baax la tegtal bi mooy moom kooka dana nekk borom këram ëllëg dana sëyi ci kooku bu dee xam na ko bu fekkee ku góor gi itam moo gént gis xale bu jigéen bu ñu rey walla ak saxix moom tamit kazalika kooku mën naa nekk soxna soxnaam ëllëg bu fekkee xam na ko nga jàkk benn bii xale bu jigéen moom moo gént moom si jëm boppam moo gént rey nit te nit ki mu rey moom xam na ko jotewuñ dara xeexuñ dakaa jam fetal paakal wala fetal wala mu doon lu mu ko mën a rey même tegtal bi zawaaj minhu sëy dana sëy ci ki nga xam ne moom la gént rey mu ñaar ñetteel bi moom xale bu jigéen ba léegi gént na rey it rey gi mu ko rey mooy doon défendre bopp maam doon xeex ak moom da ko bëggoon lor mu xeex ak moom ba rey ko ba tey kazalik azawaaj minhu sëy la boo xam dafay dellu ci moom su fekkee fekkee xamu ko at tafawuq wan najaax maanaam yokkuteel ak réussite ci dundam kon nga jàpp gént gu baax la ci xale bu jigéen da nga fekkee nag benn crime maanaam fekkee nga ñu rey nit am ko ko jam rey ko wala yu mel noonu hmm. gént gi tegtal bi lenn rek la mooy danga nga bari euh, nu ma ko mën tuddee sax da dana am ñu ñu la jege ñu bari ñoo xam ne dina la jege ci sa jegewaale bii moom baaxul ah da nga fekkee fi ñuy reyee nit. paaka lañ ko jam wala fetal wala ñu agressé ko rey ko sa kanam nga gis ko baaxul tegtal mooy am na lu ñu la jege ñoo xam ne ñu ngi def ay pexe pour lor la fii moom baaxul moo tax waxoon naa nekkul loo xam dafa baax à 100 pour cent bii nag yow da ngay nelaw rek yëg nga sa biir nga yëg ne daal yaa ngi yaa ngi yaa ngi rey nit wala ngay fexe pour rey ko mais defoo ko da koy xalaat nii rek ci sa biir génn nga yëg ko daal tegtal bi lenn la mooy dana am ay mbir moo xam ne yaa ngi ko soxla waaye danga nga jot waaye dana am ab diir bu bu ndaw boo xam da nga ci dund ay jafe-jafe ay masaakil yu metti nag wante du yàgg yooyu bu passé rek da nga jot loolu maanaam da nga da ngay sentir daal ne yaa ngi rey nit wala yu mel noonu beneen bi mooy bi mujj mooy ba ma lay wax sànq ki nga xam dafa rey nit mu nekk jigéen célibataire mu nekk kum xam burul jigéenu célibataire beneen jigéen bu mu mën a doon wala beneen góor bu mu mën a doon axyaanan léeg-léeg da gént rey nit tëdd axyaanan tadlu ala tafriji humum maanaam danga nekkoon ci ay xat-xat ak i jafe-jafe ak ay coono wala yu mel noonu yàlla dana la dimbale nga génn ci ala kulli xaalin bu ko defee ñu jàpp ni gént rey nit wala fekkee ku ñu rey gént gu baax baax la ku ko gént da ngay tiit waaye baax na ñu leen di ñaan ngeen abonné te partage def seen commentaire ku ci am laaj mën nga ko laaj ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullah